Habib Ndao ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Rewmi FM mm-hmm. maa ngi leen di fay ngay secrétaire exécutif observatoire de la qualité des services financiers tey mm-hmm. euh, Sénégal euh, jot lu toll ci euh, deux cent quarante six virgule sept milliards soit quatre cent quarante mm-hmm. millions de dollars mu bokk ci lu ñu duppee droit de tirage spéciaux bu FMI loolu mooy lan TTS yooyu nga xam ne ñu ngi koy coow temps yi yëpp lu muy firnde <laughs> waa DTS xam nga pays yëpp euh, Sénégal ak yeneen pays mm. bokk FMI yëpp ay mm. actionnaire lañ FMI mm. FMI mooy ki yore tontine bi tontine boobu nag boo bu bu sa teggi jotee teggi boobu moo tudd DTS boo teggee sa DTS yi léegi euh, da da nga koy teggi su fekkee ne da nga nekk difficulté. bu njëkk euh, depuis bi bi ñaa euh, seconde guerre mondiale jeexee. Mhm. FMI bi def mécanisme boobu waaye léegi daf ko élargir léegi daal pays bu am difficulté. Mhm. mun nga laaj sa DTS yi cinquante pour cent nag nga am droit teggi. comme li ñuy wax ba bëccëg daal. waaw <laughs> <laughs> exactement. waaye cinquante pour cent rek lañ amoon droit teggi ci bu njëkk ba. waaye président Macky Sall dafa am rapport relation particulière ak. Euh, patron euh, Fonds monétaire international. Mm-hmm. muy Georges mm-hmm. la. mu développer relation de kóoluwante mu may ñu ñun au lieu ñu teggi cinquante pour cent suñ suñ teg bi ñu tegoon ci tontine bi hmm. ñun ñu teggi cent pour cent loolu mooy ci avril euh, daaw hmm. ren ren ci fan yi nga dégg nii hmm. euh, bi sommet Paris bi amee ndax président Macky dafa o oh, président Macron ne ko e Afrique euh, yéen pour ngeen retrouver waat seen croissance bi parce que ay capitaliste lañ ñaan da nga leen fu seen intérêt moo tax proche président Macky original dafa ne ñoom dafa ne Macron waxal ak sa yeneen morom ñi nga bokkal G5. Mhm. G7 pardon ñi nga bokkal G7 mhm. waxal ak ñoom nga ne leen man am naa idée ci croissance mondiale bi ñëwaat pour croissance mondiale bi ñëwaat foog croissance africaine bi ñëw. Mhm. ndax foofu la ñuy tibbee waaw ndax économie yëpp dañoo lënkaloo. te Afrique rek moo dese débouché buñ defaree ay iPhone baal ma ci publicité bi Samsung et cetera buñ ko dëgg la ñun suñ matière première yi euh, mu ngi mu moom ñoom dañ ko soxla mm-hmm. dañoo soxla suñ naaj bi gannaaw loolu yëpp ñett yooyu yëpp mun na bokk ci moteur yi accéléré croissance addina bi mm-hmm. mu ne leen su ngeen dimbalewul Afrique yéen du ngeen dem bu ngeen dimbalewul Afrique du dimbale dimbale yërëm de Mm-hmm. c'est-à-dire su ngeen jàppalewul Afrique. Mm-hmm. du ngeen dem. mu Macron da ngay woote conférence G7 nga wax ak ñëpp ñu wax ak pays ñu wax ak ñi am doole réew yi am doole yëpp. Mm-hmm. ñu teg yëpp ci table ji. biñ tegee mu ne leen. Euh, DTS yi nga xam ne mu nga fële di nelaw. nañ ko génnee. biñ defee évaluation ñu gis xam nga Fonds monétaire dafa njëkk a def évaluation euh, bi mbas mi amee. d'accord mu gis ne bi yëpp ñu ngi soxla. Euh, addina bi ñu ngi soxla deux cent soixante deux milliards de dollars pour pour retrouver waat seen croissance mhm. Afrique cent milliards léegi nag bi ñu bi ñu nga xamee ne nag DTS yi euh, mu ngi taaje mhm. euh, Macron ne DTS yi nañ ko génnee Afrique su jaree sax ñu jaay or bi nga xam ne moom la Fonds monétaire amee mhm. ñu génnee nañ génne natt bi nañ génnee natt yi natt yi dugalaat ko ci mhm. économie bi mhm. pour que mbas mi duñu mun a daane loolu mooy indi DTS yi ñun nag njëkk nañ cee jot bii mooy ñaareel yoon bii ñu jot fan yii nii ci mhm. vingt trois mooy trente cent yi nga xam ne moom lañ jox euh, Afrique au sud moom lañ jox Afrique Afrique waaw te ci trente trois pour cent yooyu vingt six pour cent yi moom moom moom lañ jox ak ñi ñi féetoo ci euh, suufi gànnaar Afrique au sud du Sahara. d'accord kon li ni mel. firndeel na ne dégg nañu euh, sonj gi nga xam ne njiitu réew mi def na ko. waaw parce que dim leen sonjee la sonjeewu leen ne kaay leen dimbale ñu kaay leen jàppale. soxla leen sonjee ne nañ lëkk mhm. nañ lëkkaloo. Mhm. pour que croissance mondiale bi déparate buñ ko deful. yéen ci seen bopp da ngeen di daanu seen économie day daanu. d'accord parce que Afrique tam un milliard quatre cent millions de de population ñoo fi euh, mu teg leen ci leneen. ne ah, leen ah, gis ah. ngeen. vaccin yii il faut ngeen indi ko Afrique. bu ngeen ko mënul indi Afrique. au moins ngeen dindi brevet yi. comme ça su ngeen dindee euh, droit yi. Mm-hmm. droit yi ci brevet yi parce que xaalis bu bëri la. Mm-hmm. ñun ñu fabriquer vaccin. ok bu ñu fabriqué vaccin bu parce que bu fekkee ne mbas mi won nañu ne su fekkee ne Afrique euh, wéruñu. Mhm. Euh, feebar bi dina dem ba seen dëkk yooyu ñoom. <laughs> bu fekkee ne aussi euh, terrorisme bi réglé wuñu ko fii. Mhm. dana dem ba seen dëkk donc loolu moom appel de raison la leen def d'accord léegi looloo waral nag ñu déglu am kon daal xaalis bi ci ban moment lañ koy génnee ndax bu amee euh, catastrophe wala euh, dafa am ay anam yiy waral fonds spéciaux yooyu ñu koy décaisser waaw du du catastrophe rek c'est-à-dire que bu état bi nekkee ci difficulté bu njëkk balance de paiement bi la c'est-à-dire que li ngay génnee ci xaalis fay ci biti ak li ngay gi jot ci xaalis bu fekkee dafa déficitaire woon loolu taxoon ñu créé ne nga dem ci tontine bi jël. Mhm. waaye léegi tontine tontine bi dañ ko élargir. d'accord ba nga xam ne su fekkee ne sa réew dafa am jafe-jafe. Mhm. muy li ñu dal bi ndax mbas mi. léegi yow mun nga laaj so wàll ci tontine bi. pour def pour faire face. Mhm. waaye xaalis boobu nag du xaalis boo xam ne danga koy jël rek tasaaroo. voilà justement ndax teg nañu ay mécanismes yi nga xam ne dina tax ba ñi joxe xaalis googu dinañ saytu ndax ñii lañ ko laajtee woon moom lañ ko jëfee. waaw balaa ñu lay jox xaalis sax da ngay wax fi ñu koy dugal. Hmm. te li ci prioritaire bi. li ci prioritaire mooy médical bi dépense médicale. Hmm. parce que mbas mee tax pour xeex pour pour bañ économie bi. Hmm. rëppeelu ndax mag mbas mi. pour bañ économie pour nit ñi bañ nit ñi feebar. moo tax essentiellement ñu mobiliser xaalis boobu donc foog nga ne damay tabax ay hôpitaux foog nga ne damay defar ay vaccin mhm. foog nga ne damay jo joyantiwaat suma euh, euh, plateau sanitaire yi mhm. foog nga ne damay jël en charge euh, ñi feebar Covid mhm. te lii ma lay wax yëpp mooy li am ci réew mi tabax ñu ngi tabax yeneen hôpitaux ñu ngi joyanti plateau médical bi des na de parce que liñ fekk depuis mille neuf cent soixante depuis cent 1960 dafa am yoo xam ne waroon nañ ko def defuñ ko comme retard yooyu nag dafa am ci santé ci wàll bu nekk. Mm-hmm. léegi loolu moo waral xaalis bu ñëw buñ ko ci dugalee mm, nit ñaa ngi wone ay hôpital bu seen nag yooyu waaw. Mm-hmm. kon kon kon projet hôpitaux yi ñu am yëpp euh, xaalis googu. Euh, waaw mën nañu yaakaar ne ca lañ koy injecté pour mu am traçabilité ak yooyu. exactement ak ak jënd médicament yi jënd vaccin yi Euh, euh, ak ba pare jënd vaccin yi ba euh, tabax ay ay yokkaat suñ plateau médical bi am mm. matériel mm-hmm. médical mm-hmm. Mm-hmm. waaw matériel bi matériel bi la ak construction yi ak médicament yi voilà loolu yëpp monsieur ay prévision la nga am njortu mu comme ñeneen ñu ko amee Euh, euh, déedéet déedéet déedéet du prévision lu ñu commencé dérouler la. lu ñu commencé dérouler mais yàgg nañ fee dégg ay projet yi nga xam ne dañuy uti ay fonds mais à la fin euh, da ngay gis ne lu bëri dañ naan xaalis bi duggul fa mu waroon a dugg tey jii bu li ni mel amee nan la lan mooy lan mooy dal dëkk boobu nga xam ne jox nañ ko xaalis googu. waaw lii garante bi d'abord pour kaawu senegal mhm. bu la waxee ne la xaalis bi dugal nañ ko ci affaire yi. dañ koy dugal ci affaire yi. santé euh, santé. Mm-hmm. buñ paree dañ koy dugal itam pour fexe ba entreprise yi doon dund. Mm-hmm. bu ñu am jafe-jafe ba di yokk chômage bi. dañ koy dugal itam ci lépp loo xam ne daf ñuy permettre ñu conte ci suñu bopp. mooy li dégg ñu naan la souveraineté alimentaire. Mm-hmm. par exemple dañ koy dugal ba li ñuy béy. mu nekk loo xam ne lu ñuy lakk la donc dinañ favoriser souveraineté alimentaire mm-hmm. souveraineté sanitaire wax naa ko mm-hmm. souveraineté pharmaceutique de euh, wax naa ko parce que mooy santé bi ba tey mm-hmm. xaalis boobu dañ koy dugalaat ci économie bi pour que économie bi parce que écono euh, Covid bi ñaari problème lay di benn bi médical la benn bi économique économique waay jàppal ne kon xaalis yi ñuy jëlee ci tontine bi yëpp ci ci euh, médical bi la ak ci économie mhm. pour bañ économie bi daanu. parce que li ñu constaté mooy gis nga bi Covid bi amee bees. Mhm. Afrique était moins infectée. Mhm. mais plus impactée ñun. plus impactée économiquement mais on était moins infecté que l'Occident. ok sur le plan sanitaire. laalu woon mais ci jëm li jëm ci koom-koom bi daal ñoo gën a nekk à terre. voilà léegi nag léegi nag pour bañ nag mu nekk complètement à terre. Hmm. pour bañ usines yi tëj yooyu yëpp. léegi euh, loolu ñuy tegg ci ci tontine bi. Hmm. daf ñuy ñu résilient ñu dëgër. Hmm. économie bi dëgër. nit ñi wér. d'accord. waaw dina am nag dina am damay wax lii politique du politique du dara na population yi xam ne. dañu am retard depuis mille neuf cent soixante ci yu bëree bëri. d'accord léegi léegi gis nga ci benn lu mat benn weer ci at mi rek. Mhm. président Macky Sall euh, euh, inauguré na ñaari hôpitaux hôpitaux yooyu ñu équipé lañ. Mhm. ñaar ñetti hôpitaux mooy hôpitaux hôpital euh, Thierno Birahim Ndao ak hôpital Amath Dansokho. Mhm. bon léegi ñu ngi tabaxaat yeneen. bu Touba bi niveau quatre. hôpitaux yi pendant ce temps hôpitaux yi nekk fii Sénégal ñu ngi leen di jox matériel. CTE euh, le centre centre de traitement de maladies infectieuses bu professeur Seydi mhm. moom mu jàppale ci professeur Seydi donc loolu à côté de loolu am na ay soutien économique à l' soutien financier à l' mhm. yoo xam ne président Macky Sall mi koy def ci cadre xaalis boobu nga xam ne moom lay jëlee ji bitim réew ba pare mu jël léegi nag pour bañ tam économie bi daanu. Mm-hmm. dafa jël décision boo xam ne bu am importance la. te nit ñi soxla ko. Mm-hmm. mooy projet yi mu sumboon yëpp amul ci benn buñ gaaree. parce que buñ ko gaaree projet buñ koy exécuter day tax entreprise yu ndaw ndawaan yeeg yëpp di ci am ak yooyu yëpp. Mm-hmm. Euh, waaw léegi kon économie bi di tourner. parce que su fekkoon ne dafa arrêté am na pays africain yoo xam ne dañoo arrêté seen projet yi. waaw ndax euh, kii mais bu baaxul. li mu def nii pour buggu économie bi toujours parce que économie comme moteur yi nay tàng rek bu mu surchauffé hmm. bu mu nekk sous régime d' accord euh, monsieur Ndao euh, am na sànq lu ñu waxtaaneewul ci kàllaame nasaraan ndax euh, waxtu wi daf ñoo njattoon waaye fii ci quelques secondes ñu gis ne dafa am benn disparité ci fonds yu ñu accordé aux pays africains mm. nee nañu Dakar tey jii dix-huitième position la muy neuvième mm. place donc ci ginnaaw Afrique du Sud ak Nigéria ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp ba ku ci nekk am ci koppar 18 kii 3,3 nan la demee noonu ba ku ci nekk bourse bi nga am ndax dafay euh, expliquer ci xayma yow projet bi nga leen teg bourse bi ni mu war a dool non li ko def mooy ñu hmm. d'abord ba ba benn pays africain amul en avril ñu jël nañ suñ cent pour cent bokk nañ ci ñu njëkk a jël c'est parce que non seulement dañu am économiste yu ay hmm. ministère de l'économie ministère des finances et du budget hmm. ñu am président bu exigeant c'est-à-dire dafay wax leen ma li li li mën a am. Mhm. bu leen ma wax li ma bëgg a dégg. d'accord donc noonu lay liggéey ñu ñun ñu ne ko mun nañ pour ñu pour ñu am mille milliards yi. Mhm. mën nañ ko jëlee fii ak fii ak fii notamment DTS gannaaw yow am nga relation yu baax. ak mhm. patron bu fonds monétaire. dimbale ñu jël nga wax ko ñu jël suñu DTS cinquante pour cent rek lañ am waaye yow comme am ngeen relation yu baax. kon daal am na fa bàjjen. waaw am na fa bàjjen mm-hmm. beneen bi ci def. Mm-hmm. amoon nañ assurance bu ñu am Afrique boo xam ne pour catastrophe naturelle bu nekk Afrique du Sud assurance boobu xaalis boobu ñëw projet yi na xam ne banque mondiale financé war na ko yooyu. Mm. décaissement yi banque africaine de développement euh, BOAD yooyu yëp ñu ñëpp indi. ñu joyantu suñu ñu aaye ne benn fonctionnaire tukki. Mm-hmm. àdduna a euh, part si c'est nécessaire ñu aaye bu ken jënd bu bu fonction publique jënd oto. Mhm. yooyu yëpp xaalis yu ñu joyant yëpp moo moo waral que bu ñuy mobiliser mille milliards yi benn jafe-jafe amul boole li sénégalais yi cotisé sénégalais yi tam ñëw nañ lu mat de douze a quinze milliards sénégalais cotisé nañ ko loolu moo waral ñu joyant yooyu yëpp mais su ngeen gisee leb bi neuf mille milliards yi. Mhm. c'est pas pas que dañoo am pétrole c'est parce que. fi ñu leen wax ne fa la ñuy dugal xaalis bi fu óor la. fi mu nekk boo demee banque am foo bëgg a dugal xaalis. Mm-hmm. banque bi bu xoolee projet bi gis na projet bi nga koy wax ni lu mm-hmm. mu mu jox la su ko kiiwul daf naan la maa ngi ñëw d'accord loolu moo tax nag donc kuy toog naan dañoo leb-leb yu bëri mm-hmm. mooy ne sax yow yaa ngi wan ne kon président Macky Sall am na crédibilité <laughs> parce que du ko leb rek ñu lebal Habib Ndao ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax maa ngi lay gërëm jaata